Gaston Production présente. Ça veut dire qu'il est presque prêt, presque parce que tout simplement on voit qu'il y a d'autres bouteilles encore à l'intérieur. On espère un jour le soir que ce combat également soit euh, un combat où il n'y aura pas de mort, soit euh, un combat où il y aura contestation. Il y a Bombardier aussi qui rentre voilà, dans l'ensemble. qui arrive. Bombardier qui arrive. Voilà, voilà Bombardier. 15 victoires, 7 défaites. 7 défaites. Et Balagaïde, on le rappelle, on le rappelle. Ouais. Euh, en 20, 21 combats, il a, il a victoires. Il a 2 défaites. Et 2 défaites. Le plus grand événement de la saison. un choc au mbokki àdduna mbokki Sénégal ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci sangu sangi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi suñu ñaari wajur di amaan mbégte ak contentement di ñëw fii tey ci teeru bi. teeru bi nag buñ ko tuddee xel yëpp dina dem ci ki nga xam ni macha allah mooy le président des amateurs du Diagne Diecko ki nga xam ni kenn duut ko présenté parce que ci réew mi la bokk. li ko def mooy dafa marqué empreinte am moom nee naa la du njuddu jéeri du mbaramtaan fii la dëkk ci réew mi di doomu réew mi. ñu bàyyi ko mu néew suñu bokk intone yi gaston production point com père maa ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sa caméraman di nuyu képp koo xam ne yaa ngi liggéey gaston production. gaston production moom tudd ko rek kenn du ne la. Mhm. kenn du ne mhm. nga xam ne gaston mbeng ñu ngi koy nuyu. Mhm. ko nuyu nuyu njabootam gépp di di nuyu ñëpp képp koo xam ne ni yaa ngi liggéey gaston production. ngay njabootam ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di nuyu njabootu làmb yëpp nga may ma nag ñu jaale suñu nit ki ñu naan nekkal làmb chaque jour muy amateur muy xaye gay di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana di jaale tamit euh, Double di ko ñaanal yàlla ko yàlla xaar àjjana ak mbéy géey mhm. ak képp koo xam ne tey jénn nga àdduna nekkoon suñu njabootu làmb tey xëy na yëguñu ko. Mhm. ñu ngi lañuy jaale say njaboot di ñaan yàlla yàlla xar leen ak amiin yaa di nuyu suñu mbokku ñu nekk si prison yi di nuyu ñu nekk si hôpital yi di ñaan yàlla mbas mi jóge fi di ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm sport muy politik muy lépp lu mënta nekk jarul xeex jarul xuloo mhm. ku nekk na nga ànd ki nga àndal bu dee voté ñu ngi jëm ay élection locale ku nekk na nga ànd ak ki nga àndal ku jaar sa bontu kër sax xamal ne yoon bi ñu ënu buur la may ko mu jàll dem doxi soxlaam yow it nga téye say nit xam ne voté bu jotee ku nekk na nga dem votel ka nga votel ka nga war a votel jaru xeex jaru xuloo ndam ni Sénégal la yem ñii koy jiite sénégalais lañu lépp fii la yem kon jaru xeex jaru xuloo làmb tamit jaru xeex jaru xuloo supporter bu ne supporter ka ngay supporter bu daanee nga bég bu daanoo it nga xam ne loolu la yàlla dogal nga ñibbi si jàmm mm-hmm. loolu lañuy ñaan yàlla defal ñu jàmm di ñaan non violence mm-hmm. yàlla na Sénégal am jàmm jërëjëf mu nekk lu am solo c'est des paroles de la sagesse kii wax kilifa la porteur de voix la macha allah ci réew mi la bokk te bu waxee nit ñi dañ koy déglu moo tax mënu woon ñàkk mu lancer message boobu ngir ñi nga xam ñooy askan wi pour ñu mën ko jariñoo père ñu jëm ci tàkkusaan gu mag sa xarit sa frère tëgg ko muy Gaston Mbengue la Don King de l'arène le 28 novembre diggante Pakal ak Forja ñu demoon ba jàpp ko mbas mi ñëw ñu reporté ko tey nag jàppaat nan ko lan mooy taxawaayu amateurs yi rawatina président du jànjee ko waaw bës boobu bés bu rëy la parce que dafa jël ñaari xale yoo xam ne macha allah mën nañ bëri am nañ jom am nañ gannaaw muy Pakala muy Forza Forza boo ko waxee Forza da nga naan Pape Mayel Diop. Mhm. Pakala boo ko waxee da nga naan Pakala bu Mbuur mhm. mbur nag ñëpp xam ne euh, euh, euh, Thierno sàll ma nga fa. yaa ngi dégg Thierno ñëpp nga fa am politique yu bëri nga fa. fii nag danga nga naan borom ndakaaru ñu koy wax Pape Mayel nga xam ne xale bi tamit booy wax Forza danga naan naan Bargny ne Tëngéej ne Tëngéej. ci dën ne mbu ne ne ne ne Mbaaw. lébu gi rek yaa ngi dégg lébu gi mhm. yaa ngi dégg fépp foo xam ne léboo nga fa mhm. fii ba jandeer fukki penceeg ñaar ñëpp dinañ ngemb ki nga xam ne ni tey mooy Forza kon nag muy làmb ju rëy muy làmb ju neex joo xam ne Sénégal gépp kay taxaw xam nga Gaston nag macha allah Gaston production boo ne Mbaye Fall hmm. boo ne Abdoulahat Ndiaye Aline Gueye boo ne Aline Gueye Makan Mbeng yaa ngi dégg ñoom Makan ndeysaan ñooñu ñu xam làmb lañu. Mm-hmm. kon nag tey ñooñu tey bu ñu nekkee Gaston production làmb ju neex day am parce que ñëpp xam nañ ne ay nitu làmb nga fa. Mm-hmm. ñu leen di féliciter si combat yi ñu tëgg yëpp parce que yëpp a neex macha allah waaye bii nag combat mun nañ ne combat amateur. amateur yëpp dinañ dem incha allah parce que Gaston am na lu mu def si làmb loo xam ne du dañ. Mm-hmm. bu làmb jaaxle dina indi lu rëy indi ko si làmb te moom dafa am jom am fulla am fayda. kooku nag jar na vraiment jàppale réew mi sax war nañ ko jàppale muy président de la république parce que ku tëgg ay làmb ñu koy renvoyé moo tax toujours may wax ne président jàppaleel promoteurs yi jàppale ñoom Gaston ñoom Pape Abdou Fall ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey duggoon nañu seen alal. Mhm. Covid bi ñëw. muy euh, Leewtoo production ñëpp rek. Mhm. pour ñu jàppale leen parce que vraiment métti na. Mhm. terewul ñoom découragé ñu xam nañ ne Sénégal la ñuy liggéeyal kuy liggéey Sénégal nag liggéey sa réew doo découragé. mu nekk lu am solo per ñu toftal ci beneen combat Zoss ak ki nga xam ni mooy Alioune Seye numéro 2 sa doom combat boobu boo mënoon defal pronostic loo may wax. waaw xam nga zos nag dollar la. <laughs> c'est-à-dire. moom américain la <laughs> moo tax ma ne la dollar la dollar la ndeysaan. da ngay ñëw yaakaar ne tey day wàcc mu yéeg. mu yéeg dëgg la. waaw mën la mën bi jaaxal la mën bi jaaxal kon nag Zoss Alioune Seye na xam ne combat bu rëy la am. ndeysaan muy Zoss du maye dara. dina ñëw bëri ful ak fayda te it ñeme na te du yàq làmb mhm. donc Zos ñu koy félicité di félicité mhm. Gaston mi ko indiwaat mhm. boobu combat rek doy na mais retour noo ko gisee retour euh, bu mu koy wax léegi nii da ngay bàyyi gars yi ñëw il faut amateurs yi ñëw gis lugu lugu li wax lugu gu Zos <laughs> américain boobu lan lay indi. dëgg il faut ñu bàyyi rek xam naa ne bu ma waxee lii Zos mën na jéem feneen. Mhm. parce que waaw dafa bëri système bëri feem. Uh-huh. mun na jékki-jékki rek daw rek summeeku si sànni yére bi. <laughs> daw rek wër waaw. loolu Zos daal moom amateur na ma ñu ngi koy xaar Alioune Seye nag xale la boo xam ne wax dëgg yàlla barki mu gis nga ni mu def. Mm-hmm. Issa Pouye. Euh, ki nga xam ne mooy Issa Pouye. Mm-hmm. mbër la mbër waalo waalo la. dañuy wax sax ne dafa xaw a ci làmb parce que vraiment mbëri xale yu bëri duñ ko ñemee bëri. <laughs> donc tey bu ko neexoon mu ne Issa Pouye laa daan. Mhm. du ma jël Zoss. Mhm. mais nitu làmb la. mbër la boo xam ne dafa mhm. bëgg a bëri. moo tax moo tax ñeme na. pour jël Bass pour jël Zoss. ñu ñi ñoo naan la mais moom xamul loolu parce que mbër la rek dafa war a bëri. parce que bëri ak daanoo ànd. nit ki bu ñu la joxee combat. nga daan bërki dem ba ñaar ñu la avancé nga que loolu moo tax ngay dem retraite nga am loo réalisé waaye bu yaa ngi daw combat di daw xaalis mais doo am xaalis mbër xaalis a tax nga ñëw si làmb <laughs> buñ la avance jëlal nga dem bëri ji mhm. parce que loolu mooy sa njariñ moo tax ñu ngi félicité Alioune Seye euh, mhm. di ko encouragé bu mhm. baax xam ne vraiment mbër la mais combat bu neex la. combat bu neex la dëgg yàlla. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla fekkee ko jàmm ak mboolem mbindeef amateur yëpp ñëw si làmb ji ñu seetaan bisimilah rahmaani rahiim ñibbi si alhamdulilah ñëpp xam nañ ne Gaston moom buy tëgg sécurité bi lépp dina doy incha allah ñuy ñaan rek euh, ku nekk nga ñëw ak yar ak teggin. Mhm. ku war a takk max nga ñëw ak sa yëpp xam ne làmb ji loolu la laaj ñu bëre ko si jàmm bëre ko si fulla bëre ko si fàll ku nekk war a mu nekk lu am solo pour ñu tëj angle boobu rek ubbi beneen parenthèse nan nga gisee retour Gaston Mbengue ci làmb ci. mais retour Gaston li mu def jël na fi ay combat mbër mu ne mu jox la ñaari avance. Mhm. loolu ba ñett mhm. loolu lu am solo la. Mhm. tey mbër yi nga xam ne toog nañu fi bëriwul woon wala yàgg nañ toog bëriwuñu. mu jëli mais ñu ngi bëri. revanche yi ñu ne woon dootul amati am na. donc loolu mooy promoteur ñun loolu lañ naan xoolee suñu bàyyi Basirou Diagne dañ naan làmb ji mënta am mu fexe ba mu am. ku fexe ba Robert Diouf ba rek Moussa Diame. Mhm. yooyu yëpp ñaari séeréer. yooyu yëpp feem la. donc moo tax promoteur bu taxawee ne lii dama koy def bu ne du am. Mhm. moom xam na feemam ba mu am. kon ñu ngi koy félicité si li mu def. Mhm. nga tudd léegi suñu papa muy papa Basirou Diagne ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xale àjjana. amiin lambu démb ak promoteur yi ak amateur démb ba mu ko doon différencier ak bu tey lan nga may wax. waaw xam nga démb. mag ñëpp xamante. yéenante jàmm. tey ku sañse yéene nga sa moroom li mu sañse <laughs> ku def lu baax ñépp wax ko buñ la xoolee safaan ba ñu nëbbal la ko kenn du koy àndal ak sutura yaa ngi dégg buñ la waree teral kenn du ko xam mhm. jamono jooju nag ak jamono ji moo ute. waxante lu baax defante lu baax defante lu baax waxante lu baax dimanche bu jot groupe dem añ kër kenn sañse téer bi maa ngi yow ñooy seetaanandoo ñooy demandoo. bëri ba pare ànda nga ñawal ma ma dem ma ñawalal sama mbër mi nga ñawal ko. yooyu la moo amoon démb ak bërki démb. Mm-hmm. teraanga deflante teraanga. daan nit ki ba pare indi ko. daan nit ki waaw offrir ko ay cadeau offrir mm-hmm. Production présente. sumeeku na ça veut dire qu'il est presque prêt presque parce que tout simplement on voit qu'il y a d'autres bouteilles encore à l'intérieur on espère on peut le souhaite que ce combat également soit un combat où il n'y aura pas de mort soit un combat où il y aura euh, contestation il y a Bombardier aussi qui rentre voilà, dans l'enceinte Bombardier qui arrive Bombardier qui arrive voilà voilà Bombardier 15 victoires 7 défaites 7 défaites et Balla Gaye on le rappelle Balla Gaye 2 on le rappelle ouais. euh, 21 Le plus grand événement de la saison, un choc au sommet.